ci jamono yi ñuy jooy coowal meurtre fii ci Sénégal beneen coow juddu na de te bii yoon histoire de meurtre la maanaam faat bakkan mu dox ci diggante sénégalais yi nga xamante ne ñoo dëkk ca Gambie ak itam suñu dëkkandoo gambien yi fi mu ne nii seen nekkit neexatul dara. lépp nag mi ngi jóge ci sénégalais bi ñuy wax Gora Seye moom la ñu wax ni da doon commettre ab vol ci kër benn tubaab ba mu ñu faa faat bakkanu gambien bi ñuy wax Djibril Cissé jamono ji ñuy wax ak yéen nag polis bu Gambie sax teg na ko loxo. yow xamuloo yow da nga rey nit ba pare yaa xamul loolu grand xaaral xaaral yow loo uti ci kër tubaab boobu noonu loo uti foofu. lii nag la wolof njaay naan ay du yem ci bopp borom de ndax bile meurtre sax tax na askanu Gàmbi rawatina ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci gox boobu ñu naan Sayang daal di mer ba futt wutali bépp sénégalais bu yeewoo ci gox boobu daanaka une vraie chasse à l'homme. taal nañu palaasu sénégalais yëpp tout lii moo xew Gambia ah ci sénégalais nekkoon di daan seen doole yëpp lépp. she is a Toyota This Toyota also is bond, as you can see. So, la Gen mo nekk si bir nii oh. li wara sax sen mer gi mom bokku na ci mom Gora Seye mi mbokk sénégalais bi dañ ko bëggoon na rawale waye jamono ju ñuy wax ak yéen ñoom sénégalais yi sen bop sen bakkan lañu mujjé rawale ndax gaddu nañu seeni bagage de genn gox bobu ñu naan yang wuti fuñu ñu ndax bi le persecution. bi problème bi amé fofu suñu mbokk yu jotta nek fi wo nañu ñu ñëw leen fi ñu dalal leen ba problème bi give lolu dal ñu isi fii quoi. ki ka def dawna ñamu ko bokal dem nañu ñun xamuñu leen léegi nak ñom ñu ñëw attaquer ñu ñu ñu sama kër tay lak nañu sama mat lay sama yéri sama dépôt gaal yi lima ma yépp del nañ ko sama walis génné ko be fi ñu taal neeg bi taal mat lay taal yépp sama ñett gaal la yoro taal nañu ko taal machine muy metti nak suñu daw bi ñew fi yalla ak li ci seen dimbal rek. ngeen jàppale nu ñëw fii pour sawee nu ak suñu njaboot. ah bu ñuy bu ñuy duggee ci kër gi ñu tëju bu ñu demee ñu ubbiwaat tuuti da ngay toog tuuti ñu ne ñu ngoo ñu ngi ñëw ñu tëjuwaat loolu lañ fa nekk ñaar fan. moo ne di diggante Sénégal ak bi yàgg naa rafet ndax daanaka benn réew la. waaye jamono ji ñuy wax ak yéen mbir mi metti na loolu ba suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñoo fa nekk mënatuñu sax liggéey. Saañang am naa fa juróom fukki at man bi ma fukki at laay kenn mosoo dégg lébu bu rey nit ci Sañang masula am nu ndax mel nu wax ba jigéen ñi Sañang ñoo bokk ndey baay ñun ñëpp ñoo toog waaye comme que am na te waa Sañang sax neexu leen comme ni ñu génne nii neexu leen ku nekk boo demee Sañang ku nekkaa nga toog na ni mag sa ñoom nag way daw làqu yi ki di ambassadeur bu Sénégal ci Gambie di Bassirou Sène jot na fa dem nemmiku leen ngir xol ñu bu lolu autorité sénégalaise yi war nañu saisiru ci mbir mi bala muy ëpp loxo ngir rek sam relation diplomatique yi nga xamanteni mo am ci ñaari réew yi té itam force de l'ordre du Sénégal ak yu Gambie gëna lekkolo ci mbir yi ni mel ndax yag nañu ñu poursuivre ab malfaiteur fi ci Sénégal mu daw dugg biir Gambie wala sax contraire bi ndax rek jege yu réew yi jegeyantoo lii li ñu leen indiloon ci xibaaru de bi fi ci Totem Actu way leen rek duñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook et Twitter ci Totem Actu tu es sur le site internet www.totemactu.com